di am mbégte ak contentement jarul ngeen chaque jour di leen jaajëfal yéen ñuy topp ci Leewtoo TV saa su ne ngir leen indi li gën a fës si bopp xibaar yi tey nag sama natango bi di Mbaye Babacar borom Jurbel nekk fi waaye maa fi nekk war na jukkil li gën a ruus si bopp xibaaru làmb te noonu nag may nuyoo jigéenu Sénégal jigéenu àdduna tey jii ci 8 mars bi nga xam dañuy sargal jigéen ñëpp ci àdduna bi waaye di sargal suñu yaay booy suñu mag yi suñu raq yi jigéen ñëpp képp kuy jigéen faama maa ngi lay sargal sama caméra bu mën bi maa ngi lay bëggee bu baax a baax dramé soosé waaw wala dramé tukkuloor bëgg naa ci yow noonu laay def daal di ne saraax ci journal suñu làmb ba mu xëyee ci xëta bu njëkk la mu xëyee nag daal di xëy di samp laaj may xëy di samp laaj mooy ki nga xam ne mooy Bombardier la B52 de Mbour mu ne après 27 ans de carrière deux fois roi des arènes lan moo war a tax Bombardier di dawaat lan la Bombardier di dawaat xanaa bëggaat lu neex rek comme ni nga waxee foo foree doom faama delloo fa sa loxo ca doon nag kii nga xam ne mooy rëg-rëg ginnaaw ba daanee guy gi ma ca géejawaay nag la mu daal def delluwaat fee ci États-Unis daal di doggaliwaat waaye daa sa paaka nee na la may def mooy yokkaat doole dolli cere yokk ñeex lu tax loolu dafa bëgg a jàppanteel nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 le puncheur de Waalo wala nga xam ne mooy Sa Thiès dinaa ko luyoo soo ba Balla Gaye numéro 2 ba ca Géejawaay te noonu nag dañuy dem ci nga mooy Zal fils de Zal ak Serpent ñu nga war a amal seen combat wala 12 mars waaye tey ji nag Fama lañ war a janoo jàkkaarloo ku ci nekk xas-xas loo waaye waxan ak sa morom la nga bëgg waaye la nga nar ci jour combat ba ñu dem ci nga nii mooy Siteu Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor nag daal di phénomène bu bees tàq ci làmb ji ginnaaw ba mu ñëwee fekk ci Iba Mar bërëb nga xam ne mooy théâtre bés daan ko jël bu rëy waaye lam te la la te gën a marqué nañuy faama mooy xale ba mu ñëwee mbooloo ba mu àndal waaye yëf daal di koy topp lébu yëpp daal di koy topp looloo jaaxal nit ñi daal di koy tuddi le nouveau phénomène de l'arène ki nga xam ne nag mooy ñaa ñaa bu ndaw lam bëgg na ci combat ba contre ki nga xam ne ni mooy rëm daal di confirmé ginnaaw ba mu amee ndam ci kaw ki nga xam ne mooy boulon ba léegi journal suñu lamb la ñuy desandi combat bi nga xam te ne nii ñëpp a ngi koy bëgg ñëpp di ko laaj ak lu làmb ñëpp bëgg ko mooy combat bi nga xam te ne mooy dox ci Liss Ndiago magu Laurent Ndiago ak nga xam te ne mooy Siteu bu Ngor ginnaaw ba mu ñëwee Iba Mar daal di ko toj ñaar ñu ne nag làmb jooju war naa mën a leer ndax lan Liss Ndiago dafa daan nga xam te ne mooy caatu rëbës moom mii di Siteu bu Ngor daan caatu rëbës maanaam adversaire en combat lañ am ñoom ñaar ba léegi nag capitaine ak nga xam ne mooy calambeer dañoo war a bëri tey jii ci mardi combat ba nag mooy combat nga xam te ne mooy leeralaat wala combat confirmation lañ koy wax faama faama sama caméra woman la nee naa tey bisu jigéen la moo tax faama mi nga xam ne jigéen la dama ko ci sargal bu baax a baax sama caméra bi kenn du yow ba ko taxawal suñu mag ju baax jooju koy béggee bu baax a baax moo taxawal combat bi nga xam ne mooy Ardo kan lay am ne nag mooy Ardo ginnaaw ba ko ki nga xam ne mooy Ada Fass daane ba léegi dafa yeewu ubbiwaat beneen bëgg indiwaat beneen xar kanam ci làmb fas yéene reyante nee nag li bëgg kenn du ko xañ ka ko xañ nag mooy ki nga xam te ne mooy Mbagne Kaïré rakku Diène Kaïré Ba mu nga xam ne nii mu ngi ci yoon te bëggul dara euh, bëggul dara daal taxaw ci yoonam te ku taxaw ci yoonam mu fa xas la kay ko di àddu rek nee na moom moo koy daal di freiné ca noonu nag ca kañ jëm mooy Papa Sow le puma de l'arène maanaam borom jàmbaar wurus di académique mu nga xam ne moo poulain ba di ki nga xam ne mooy Franc ñu ngoon ci Iba Mar Diop daal di fasal nga xam te ne mooy seen bëgg-bëgg làmb ba léegi ci mbay gi ginnaaw ba mu lancee contre ki nga xam ne mooy Zarko doomu Grand Yoff ba mbay guy gi nag nee na jël na passe boobu la mu bëgg nag mooy xool li nekk ci kanamam faama daal di koy doxal te bii paa nee na combat bu amaat boroom dina xam ne la ko méttiwul ci Zarko yëpp ko faj ci combat boobu ba léegi petit ginnaaw bañ ne Assane Ndiaye borom Bawol production ah borom Bawol TV ñu ne moom mooy roi Ibamar moom moom Ibamar ndax lan suuf taxawalee Ibamar lamb lamb ji day fees ba jigi dayoo keneen ka ñëw di promoteur ba di jëm production ne ko man maa détrôné maanaam roi ba nga nekk di nga xam ne doo roi ñëw fesal Iba Mar ñu nekk nga xam ne leen déedéet doo roi man maay roi ndax maa tëgg làmb làmb commencement ba fin làmb di a baax moom moom tardégul benn yoon ci entraînement mu ngi entraîné bu baax a baax di rey boppam di daas di fanaanal di xaar combat pour am ko ca nga xam ne ne nii mooy njaaytin maanaam borom Jador borom Jador la mu bëgg ci combat bu mooy taxawal ñaari combat boobu combat ki nga xam te ne mooy Ndiaye Tine rakku Tafatine ak ki nga xam ne mooy ba ba léegi Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor la mobiliser ba léegi journal suñu moom lay xëy di fësal la mobiliser ci làmb ja maanaam ëpp na dayoo mosuñu ko si mbër bu ndaw mu mel ni mel daal di mobiliser loolu ci ay nit ba léegi nag la ñuy tëjee ci nga xam ne mooy journal suñu làmb ki nga xam ne mooy Ahmed Deme Ameth Deme ginnaaw ba mu lancé ci kanam ki nga xam ne mooy Jackson Junior ñu ne woon combat ba Jackson ci géew gi moom moo jël ndam li moom moo daan moom lañ jox victoire moom nag mu ngay contesté gis leneen la dudul loolu maanaam quatre appuis yu ñuy wax moom mi daal di koy fësal nee na da dem ba CNG daal di déposé recours ndax lan gu mujj ga sa CNG la jëm daal di déposé recours ca noonu nag dañuy def fi nga xam ne mooy journal record moom nag la muy fësal ci xët bu njëkkam Siteu bu Ngor la mu ko tuddee ba léegi phénomène moom la journal suñu làmb wax rek moom la record daal di fësalaat bu baax a baax moom Siteu di ko félicité bu baax a baax encore une fois ñi dem ci nga xam ne mooy du simple moom moo jël raw gàddu ga comme daan mooy Basirou Faye final la ko daanee Basirou Faye nag ñu koy tuddee Sa Thiès numéro 2 la ñuy tëjee nag ci journal record mooy ginnaaw ba combat ba yàqoo diggante Modou Lo ak Ama Baldé waru am la 13 ka taxawal nag di lu Nicolas Sène Fallou Enco combat ba yàqu na Modou loo moom blessure waa CNG nag nee nañ duñ bàyyi journée boobu muy yàqu lañ cay taxawal nag mooy teg fa lu mot 5 millions fa lu simple gala di ci woo mbër yu mag yépp ñu ñëw jàppale CNG parce que CNG ñu ñoo ko moom CNG suñu CNG la ay ca loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb dama leen di kontaanee bu baax a baax a baax kontaanee sama caméra bu mën bi di Fama Fama Dramé Dramé Tukulóor dama lay bëggee bu baax a baax tey du ma tudd benn góor waaye damay kontaanee bu baax a baax a baax jigéen yépp bépp jigéen buy liggéey ci biir Leewtoo TV ayda Matu ma kenn ah, joor ñaari joor yi les deux joor maa leen di bëggee bu baax a baax maire Ndéla faal dama lay bëggee bu baax a baax ak waa groupe Naf sa jëkk nee naa la maire moom lu bàyyee xale yi dara waaye bëgg naa ne bu baax a baax waaye damay dugg sama biir kër rek fekk man day soxna Konaté jigéen ju mën góor kenn du yow ah nga ak sa raq ji nga xam te ne mooy Ami Kolle Ndaw di leen ñaanal jàmm Ndey Xadi sama jabar ju baax ji dama lay bégee bu baax a baax di la naan muñal sëy muñ la loo muñul doo ko fekk bëgg naa ci yow bu baax ba sama maquilleuse bi nag maam jaara kebe kenn du yow damay bëgg ci yow joor faal sama jabar ji ah borom reer yu borom bool yu tàng yi togg ci mën a yàq ci bóori jàmm laa lay ñaan ak bépp jigéen bu nekk Sénégal su ma limee nag damay juum wala du ci xej kon damay bëggee bépp jigéen bu nekk Sénégal di ko jaajëfal ñëpp ak jigéen ñëpp ñu nekk ci làmb ji noonu la woon journal suñu làmb la woon ak Ndeye Mbacke di leen jaajëfal bu baax a baax jox leen dëgg daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV